sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadima wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziyaara di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bi nga xam ne moom lañ desuwaat fas yéene ko séq ak yéen ci kuréel gi nga xam ne mooy alxidma ab yëngoom bépp jëm ci liggéeyal Seexul Xadim ci tasaare xam-xam ak yeete ci wàllu lislaam ak taxaw luy doomu aadama rek ba tax tey lenn ci bànqaasam muy académie bi nga xam ne moom la taxawal muy académietul xidma ci njiital sëñ Moussa Diop alkooki mi toog fas yéene amal waxtaanu tey wi mu jëm rek ci tasaare lislaam ak leeral yenn lënt lënt yi nga xam ne mën naa gàllankoor nit ba tax mu dugg ci lu mu xamul wala muy jàpp loo xam ne ni wérul bala ñu ñëw ci waxtaan rek ñu xam ne alxidma moom mi nga xam ne académie ci moom la bokk bokk na ci ay liggéeyam yor ay daara alxuraan daaray xam-xam majalis wala lu mel ne ay école franco arabe lu mel ne Fathul Manaan bi nga xam ne mi ngi ci Touba bu dee ci wàllu social tamit lu mel ni ki kër maam jaar muy daaru kafaal si yataama boobu nga xam ne ubbi na ko fii ci Touba la ko taxaw jógit mooy taxaw liir yi te mooy jirim yi nga xam ne ñoo judd rek seen yaay génn àdduna liir yi nga xam ne ñoo judd rek seen yaay génn àdduna muy kon ab orphelinat wala pouponnière boo xam ne boobaa léegi mën na ñeenti at kon daal yëngatub xidma bépp rek mooy nit ak lépp luy tax ak nekkam yéwén ci kaw suuf ci bakkanam des ci ay rek pas-pasam nekk lu wér kon académie xidma di banqaas ci biir al mu assatul xidma moo amal waxtaan wi séq ko ak ki nga xam ne mooy sëriñ Moussa Diop alkoki nekkatul xëy na ku ñu présenté ci mbooloo mi waaye tom bi nga xam ne tey moom leen fas yéene waxtaan nag day ak fànnam ndax yàlla def na ab yëngoom ci wàllu xam-xam li nga xam ne moom la gën a fànn wala li nga xam ne ci la taxasus mooy lu jëm ci wàllu ko al aqida mooy tawxid wala usulu diin suñu borom defal na ko ci nag tawféex wax dëgg yàlla ñiy topp ay waxtaanam du ñàkk xëy na bu ñu ko dee topp li ñuy wax dañ ko gën a mën a gis kon jamono bi ñu toll dafa nekk jamono bu xaw a xat lëntam ci ñu bari ci ak ci jullit ñi ba tax ay jafe-jafe yu bari di judd loolu nag laaj na ab liggéey boo xam ne dara gënu cee gaaw rek mooy leeralaa delloo yi fi ci cosaan yi ndax xam nañu fikir moom fikir rek moo mën a jàmmaarloo ak moom lii ñuy waxtaanee nag julli ñëpp la yitteel waaye am na waxtaan wuñ ma sa am wax ne bi suñu Mustafaa di wax lam junj mën naa may xel mooy ki tax a jóg waxtaan wi dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne nii dafa dugg ci woote yu yees yi tàmbalee xewlee wala yi nga xam ne moo gën a tasaaroo te mooy li jëm ci wàllu salafiya wala li jëm li ñu tudd islamisme moo ñu gën a miin xëy ci aw tur ñooñu lay gën a waxaa ngir ña cey dugg gën a jéem xóotal seen i gëstu ba xam liñ jàpp lu mu doon ndax baax na ci ab julit rawatina nit rek buy dugg ci mbir mu gëstu ci xóot ci bu baax ba am ci xam-xam yi leen xam fu mu teg tànkam kon mbokk ñu mën a guddal rek tomb tey bi kon mi ngi nekk ci nii al ittijaahul maddi fil fikr islam yi mu jël nag asalafiya def ko mu nekk namu saj maanaam waxtaan rek ñoom seen pas-pas lan la li ñuy jëmmal ci tawxiid lan moo ci wér wala lan moo ci dëppoot ak lu wér ci kaw alxuraanul karim da koy teg man a ñoom saxal gi ñu saxal nii suñu borom dafa nekk lu jëmm da ko làmb di ko daj wala yenn yi ñuy sàn dàq ci suñu borom maanaam xabar yi nga xam suñu borom day wax ci alxuraan naan xëy na misaal yadullahi fawqa aydi wala yu niroog moom ñuy jëm sukkandiku ci loolu ba ne yàlla dafa am tànk dafa am loxo dafa am yaram ak loolu boo ko pas-pas bu ci sukkandiku lan lay yóbbee borom yooyu ak yu ko nuru rek ñu bañ a guddal ci la si Moussa Diop alkooke war a ñëw def ci waxtaan kon ñu ngi ñaan yàlla suñu borom defal ko tawfiix ci waxtaan wi defal ñu tamit ñun ñu koy topp ak moom di ko diglu tam suñu borom defal ak dégg ak topp si Moussa jox la kàddu gi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fattaahu wahaabu yaa rasaqu yaa maliki liftahu wahab liya warsuqni bi kunil aana dayqi asil ajilan bil bishri mamadin xata uqima li diinillahi arkana yassiru ju'i li tuuba waxmini waqini adal wara وتجب لسما إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليروط مشيكه بنا أجب وسلي برسليم على سندي محمد وتهل في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi nuyu ñëpp fu nit ñi nekk ci àdduna bi rek te mën na déglu waxtaan wi ni ko sëñ Fallu jaay waxe ak Académie xidma mooy daloo waxtaan wi nga xam ne kon li ni ko sëñ Fallou Ndiaye ci waxee kon ci al al itijah al almadi fi fikri islami yi man su ma def salafiyya na ma su gën maanaam nga xam ne ñi nga xam ne dañuy matérialiser suñu borom nekkat suñu borom jëmm la am na jëmm am loxoy tànk ak nangam ak nopp ak lépp am na ko loolu nag salaf salafis yi ñoom ñoo ci gën a fés ci lislaam danañ waxtaane danañ ko waxtaane ci leeral ko xam naa ni ko suñ fa ñooy junje rek gone yi nga xam ne dañu dañoo amuk jubluwaay ci lu bees xam nga gone moom fatatul mu daxaq ci ci gone wax waxasi am 18 ans li muy gën a soxla woo mooy wuutee ak jamonoom kon moo tax kon kon woote yu bari yëpp kon gone gone yee ci ëpp loola nag sax baax na ndax it nag bislaam di judd it nag maanaa gone ci ëppoon waaye nag gone googu gu nag dafa war a teey ca la muy dugg nga xam lu mu doon yaakaar naa islamistes yi jëmbul gone yu bari ñàkk nañoo xam si li nga xam ne moom la salafistes yi di di woote wala wahabit yi nuñ ko waxee ba tax na ñi ngi ciy dugg xam naa man li ma gën a yitteel ci waxtaan wi mooy nag tasawuf ji gi nga xam ne man ci laa bokk di ci dund ndax boo boo ne murit kon faaw nga ne ab sufanke la ma xam njëriñ yi nga xam ne mi ngi ci biir tasawuf mi ngi ci biir mu ci murit baatin bi wilaaya gi nga xam ne nga xam ne ku ci nekk di ci dox dëgg-dëgg da nga ko am bu soobee borom bi ma ma bañ nag gaa yi nag maanaam naa maanaam seen xéwal gu bari googu ma bañ ñu mucc ya ba bëggoon leen leeraloon leen kat képp koo xam ne da ngay bonal tasawuf wala al ashariya wala nangam ñu mel ne noonu jombul kon yow ñoom te am na waaye nag bu buñ la leeralee yow li li li nga nekk na maanaam ci xamu ko woon jombul nga del tu gannaaw xam naa kon waxtaan wi. sax xóot na sax ci niñ ko bindee waaye duñ ko mën a ci gaareel leen noonu ndax ndax mbooloo mi koy déglu tax waaye dañuy wax ci muqaddima bi rek nekkat alxuraan moom bi bi mu ñëwee ci làkku arab la wàcc waaye lu ko chanir yi la maanaam léegi maanaam léegi langue littéraire suy wax day ju day bëri ay junju gaa yi sax dañuy wax ne alxuraan kat ginnaaw nit lay waxal nit kon léegi faw làkku nit lay mën a waxe maanaam léegi nga xam ne junji nit kàlli nit noonu lay waxee ndax bu bu doon waxee làkku yàlla wa kon kon duñ ko mën a di di gënoon werante niñ sax boo xam sax werante nañ ndax alxuraan xadim la wala xadis la maanaam yàlla dafa yàllawu wala bokk dafa sosu loolu danañ loolu werante la ci waaye barab bi du du du kiyam maanaam alxuraan ay wàcc ginnaaw ay muxkamaat bëriwu ci mutashaabihaat ñoo ëpp loolu borom xam-xam xam yi werante nañ ci waaye moom ñëpp d'accord nañ te ne muxkamaat yi moom tuuti la muxkamaat yi mooy yi nga xam ne dafa leer nañ ñi amut lam-laame yooyu moom yooyu moom yooyu moom bëriwut kon nag yi nga xam ne moo ci ëpp mooy yi nga xam ne ay lam-laame la ñeen ñi ne nii la ñi ne nii la bokk na ca yadullahi foofu ay ay diim ji suñu faruñee doon wax sànq yàlla am am na loxo loxo bi ñaan waaw loxo bi ndax day firi lii ñeene day day firi lii dana feeñ ci ci ci biir. donc xam-xam it gëstu nañ ci nekkat ah waaw dialectique herméneutique tic bi am diggante ki kiy firi ak li muy firi ndax yow mi nga xam ne ca alxarnu awal al al hijri yi fekke woo ko ba ci. fukki fukkeelu siècle bi ak juróom ndax yow mën ngaa bokk ak origine ak saxaab yi ba ma nekkoon ci xarnu booba ngi ngeen bokk aw déggin ci ci alxuraan ndax société bi soppiku na seeni xalaat soppiku culture bi soppiku kon même làkk bi sax kon soppiku na ci dégginu làkk wi nga xamante ne baati arab yu bari nam doon firee as sayaaratu lam doon firi ci ci di firi ak cëgg soo ko waxoon tey ab arab donte ne ma nga dëkk ci ca kaw ga jublu ci ak ci du ko xam moom li muy xam mooy ci oto yi la ci xam kon léegi baat kon lakk wi kon diggin wi kon soppiku na loola loola loola kon tax kon ne ñu ne kon di mën naam kon maanaam léegi ginnaaw aay yi nga xam ne dafa wow koŋ leer nañ bëriwut kon kat léegi nit mën naa xalaat waaye nag lay sa këmis li sey un ja dana ko tënk ne kat lépp loo xam ne ab kàllal la bu buy niru ne dafa nite ñu ne déet ndax moom dàqoon na ko nee na kat man niroowuma ak dara dara dara waaw kon loola am na ay kii li nga xam ne moo gën a indi problème bi ci loolu mooy tawil am na ñu ne làkku arab ku mel ni ibnu taymiya rahimahullah cheikhul islam ibnu taymiya ci rahimahullah daan kat arab xamut kàll nee na kàll na xamut kàll li ma li mu xam mooy lu mu wax noonu la waaye loola loola ci rahimahullah man naam dama yaakaar ne xanaa dafa jàngut linguistique fiqu luxa jàngul balaaxa dëgg-dëgg xanaa waaye nag nit ñi xam ne nit yi nag maanaam léegi ak nite soo amee am ngir soo amee xaab ab xaat léeg-léeg sax nga gis loo xam ne sax day weddi sa sab xaat waaye bu dee adduna da la wër boo yeexee doo ci ci ma dëpp waaye yaakaar naa xam na ne kat wenn làkk woo xam ne amut kàll amut làkk yëpp waaw wolof mii rek bu ne la woon yeexal diw yeexal indi ma nangam ja soo demee toog ba mu neexal nga danga ne ma woon yeexal yaakaar naa kon da da da lay duma bu dee sëñ na la duma bu ne la soo demee sa kër bàyyi diw bu la fa naan ndox jublu ca bu naan ndox boo yëgul ba ne ah man de nee woon na bu naan ndox déedéet la la jublu mooy bul fa yàgg loolu ay kàll la làkk yëpp la yaakaar naa yaakaar naa yu bari la. ci yoo xamante ne kon ci làkk ci ci yëpp xam nañ ko léegi nag kon fu fu ñu waroon na na tàmbalee mooy kon terme yi nga xam ne dana dana dana ñëw ci kii bi wala concept yi waaye loolu moom du ko jar salafi salafiste salafiste mu bokk kon wala ak salafiya moom du dara lu may benn kuréel la boo xam ne juddu na nga xam ne. cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah ci moom la gën a fese waaye amoon na ñu ñu ko jiitu tu woon waaye moom ci la fese ak dongaam bi cheikh Mouhamad Abdul Abdul Wahab muy rek ab xaatiin boo xam ne ab système la maanaam ab idéologie la waa ji kat ba cee gisee àdduna docteur Chahidul Bouti rahimahullah ab service yi ñoo ko rey ca Syrie daaw rek daaw di jig daaw ji jig yaakaar na war naa mën ñu teet ñu teet xanaa rahimahullah ña ngi ko rayee ca jàkka yi dimasq ci ca aljamihul amawi yi mu defa def waxtaan ku jàmbar la ab sufenke la ba noppi nag yaatu lool xam-xam dafa bind benn téere boo xam ne xam naa ne sax loolu dong war naa tax salafisi war koo mën a boom mooy ne kat dana salafiya marxatun samaniye mu mubaraka la islami ne leen ah mu xam ne turu téere bi képp doy na ci ne ma ne salafiya kat salafisme kat lu baax la waaye ab jamono la woon époque sangam day mag mag ña la la ñun dundee ñun ñii buñ naa mag ña jublu ci Sëñ Tuubaa ak Alaaji Maalik ak Cheikh Fuuti ñoom ñëpp rek xanaa mag ña ñu jiitu mat ñu maam ñooñu dañu ne ah maam yi baax nañ mu ne ñooñu daal loolu rek la waaye du nag am ngir lu am solo la loolu maanaam maanaam maanaam uturoxa bi tees bi rek dafa rafet lool. boo demee ci biir da lay wan yu bari bari naa la sallallahu alayhi wasallam sax bi bi ne dawul sul mbubb mu mbubb mi ngi ko so sole Madina Madina mën a war a dikk benn buur jox ko fa addiya ay yére tum naa dafa fekk Madina di di sol ay yére mu sol ko ndax Màkka ñoom ñu xam ne mooy taraxlaayu benn buur jox ko fa ay kaas kaas weer yi kaas weer yi jox ko ko mu jënd ko man xam ne kon moom yooyu du diini aadong la aada la ba mu gisee ñu sul ñu bu sul ko ba mu gisee ñu sul mu bu sol na ko ndax mu mu bëgg gën a jekk boo gën a noppale ci tax layu ab kaasit ku ne xam ne ne moo moo moo gën a noppale ci ci jël maanaam seen ndaayu ndaw yooyu di ko naane te it moo gën a civilisé sa sa bi sax tere woon na ko daan ab ab gutt nga di ca naan ca ca kii ba ca uccur ba wala yooyu waaw loolu loolu tere na ko kon léegi lo loolu mooy seen cosaan ñoom léegi nag li nga xam ne fi nga xamante ne moo gën a diis ci ñoom ci salafis yi li ñuy wax xam ne wute kook ñëpp mooy yàlla dafa limitu yàlla daa am limite waaw yàlla nga xam ne moom yàlla day tàmbalee fenn yam fenn waaw waaw loolu loolu loolu nag dama yaakaar ne mën naam dañoo jàngul maanaam science science bu xamoon science dara loolu moom duñ ko wax ak la nga xam ne maanaam limite li mu li mu firi loolu moom yaakaar naa kon kon ndax limite boo foo ko fekk moom matière la matière nag moom matière nag mooy lu lu lu dara ëmb matière mooy mooy lu ñu ëmb lu ñu ëmb matière it day indi temps ndax yëngatu matière mooy indi maanaam temps loolu loolu moom te matière day dana war a diis woyof gàtt gudd yaatu nangam loolu ay mandarga ci ci matière la te matière ku ne xam ne kon soxla woon naa leneen ko xasee soxla woo leen kon loolu ko kon duut tu yàlla yàlla moom ne woon na wala xan yu yu xamit nee na man ku doylu laa waaw ko kon yooyu moom yaakaar naa ko ci kon ak it tës bi boo xasee boo xasee wax ne màdda la kon day kon day am lu mu niru danañ ca gën danañ ca dikk kon tem gën a kii yaakaar naa kon mën xëj mën xëj méthode bi jëfandikoo ci gëstu bi mooy aljadu taarix yi te mooy nga ci nga tànn ay ay ay élément wala ay ay modèle yoo xam ne ci ci ci histoire ba ba noppee nag wane dëgg-dëgg mu ñoom seen gisin wa waaw loolu yaakaar naa mu muy kii bi waaye kon kon fi ñu gën a sukkandiku nag ci gëstu bi ndax ginnaaw dañoo bëgg ki ngay waxal mën koo dem seeti léegi gis ko ndax gaa yu bari soo soo dee wax mën nañu ah ci waa ji day wax rek waaye kon léegi ñu indi téere boo xam ne soo soo demee ci google bi fekk ko ci mi ngi tudd isbaatul xaddi lillah wa bi annahu qaaidun wa jaalisun ala arshihi kooku boobu téere sannafahu abu muhammad mahmud ibnu abil qasim addashti al mutawafa sanata sittumia wa xamsa wa sittina hijriya kon moom téere bi isbaatul xaddi lillahi wa bi annahu qaaidun wa jaalisun ala arsihi taala loolu loolu moom téere bi noonu tudd téere bi nag mi ngi ci internet so so soo ne isbaatul xadd rek téere bi daal di di di génn ñoom it salafis yi ñoom it ñoo ko ñoo ko fa dugal am na fa lu am maanaa mooy ne ki nga xam ne moo moo moo tax téere bi def na fa benn mulaxasa bu am njëriñ mu ne zakaral albani yi nee na albani yi te mu ab salafiste bu mag la nee na day téere bi téere boobu boobu bu day nee na nee na li ci nekk amut lu koy dëgëral ci kitaab ak sunna loolu ci waa ji sax nee na ah moom wax bi di nee na wax jooju di ku de xam ne ne day màbb téere bi lépp nee na moom albani nee na téere bi li ci nekk hadis yëpp dara wéru ci waaw waaye nag waaye ginnaaw ñoom gë gëm nañ ni wér na kon it noonu noonu ci la ñuy sukkandiku ci ci ci ci ci tàmbali ñoo xam ne kat noonu jubluwuñu saagaak xasak nangam ci ngaañ ñi li ñu jublu rek mooy lekk leeral. dañoo bëgg rek waaye ji nga xam ne waa kay dañoo bëgg rek nit ñi xam dëgg-dëgg luñ nekk kon léegi max naal xadd waaw xadd limite bi. abul xasim al asbahani nee na xadd kulli cheyin mooy mawdiu baynunatihi an xayri lépp loo ne dafa am ab dayo fa mu yem ak morom ja nee nag fa kullu mawjudin lahu xaddun yantahi ilayhi waaw mu ne kon maanaam léegi al xadd xadd mbir mu nekk ab dayoom mooy la mu wute ok mbir mu ne ab dayoom mooy mooy fa mu yem ak morom ja da adraam yi nee na nee na kat ñëpp bind fépp xam nañ ne maanaam dara du am lu may ne am na xadd am na yemu am na it melo nee na lépp lu amul ab dayo amutub yemu amutub melo nee nee na du dara moom loolu la wax waaw moom it ci gaay yi nga xam ne ci salafis yi la bokk ñenn ñi nga xam ne ci waa ahlu sunna ñee ci ci waa ahlu sunna lañ bokk waaye ñii ci lañ bokk ñoo ñi nga xam ne ne ñoom dañoo wax ne kat loolu sifaatu xabar yi amut ko ko ko mel ne Abu Daawud at-Tayaalisi yi dafa wax ne kaana sawriyu wa Shu'ba wa Hamad ibnu Salama wa Hamad ibnu Zayd wa Sharik waa boo ci ci awaana ñoom de ñoom daawuñu ne wutal yàlla ab dayo ñoo ñoom dakkuruñ ci loolu daaw daawuñu wutal yàlla ab dayo daawuñu ko niróol ak dara daawuñu it maanaam léegi misaal ab xadis naa na yàlla am na loxo wala am na nangam ñoom wala am tànk daawuñu ko misaal daawuñu wax naka la ibnu rajab fil fath moo ko moo ko wax al jus us assadis safa xum sumi yow xaw xam safa talatin soo demee da nga ko ca fekk ibnu xutayba it waxee rahimullah ne nu'minu bi ru'ya wa tajalli wa wa nahu ya'jubu wa yansilu samaa'i dunya wa nahu ala ta'ashi tawa nee na ñun gëm nañ leen ne yàlla day fenkat day wàcc asamaa jege bi maa ngi ci kaw aras nangam nangam waaye duñu wax nag ne naka la wala duñu waxee ne ab limite am na su léegi nan ko fekk ca téere cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah fi arad ala al jahmiya safa xamsa wa salaasa wa xamsin foofu nag ma ngi ko jëlee ci ci ci ci taqiq téere bi te mooy isbaatul xadd lillah boo demee ca téere aqidatul imam ahmad ibnu hanbal safa arbain li abil fadl abdul wahid ibnu abdul aziz at tamimi nga xam ne mi mi mi ngi ndelaw 410 nee na kaana ahmad yaqul fi maanaal istiwa wala ulu wala wala wala ittiba nee na al imam ahmad ibnu hanbal dem dara wax naan istiwa bi li muy firi mooy kawe ak ak yéeg rek waaye du firi toog nee na nee na it dëggandul ñu wax naan dafa toog laal la muy toog wala mu daje moom nee na it dafa wax ne it ni maanaam suñu boobu amul ay dayo ne jëkk muy bindee aras ak ba mu ko bindee ba noppi ibnu noonu xabaan xanaa ne sax ibnu ibnu xabaan bokk ci dekko de nekk ab imaam di mu xaddis bu bu mag waaye nag dañ dem ci kanam danañ xam ne it ab chien yi la ba tax na sax ci chien yam nga tax nañ ko xaw nañ ko caaga sonal lool abu ismail alxarawi ci zamul kalaam nee na téere bu ñuy wax zamul kalaam jusu rabi 402 nee na laaj naa yaxya ibnu ammar an abi xaatim ibnu xabaan al busti qultu ne la laaj naa ko ne ko ndax gis nga ne mu ne ah waaw gis naa ko kay keroog bañ koy génne sajistaan ma nga ci asiya suxra keroog ba ñuy génne al imam ibnu xabaan de man de keroog fekk kenn naa ko bu ne borom xam-xam la lool waaye nag amutoon di diine ñëw na fa fa noonu nee na lu tax ñu génne ko te kan mu ma saxi ibnu xaban la wax de borom nee na ndax daa weddi na yàlla am na limite ñu génne ko mu ne fa ankara alxadd lillahi fa axrajnaahu min sajistaan nee na it lu am solo ab jandiko mu ne dane saaxibu saxi nee na lam yakun lahu kabiru diin amutoon diine ju ju bari te mooy saaxibu saxi de loolu de xanaa kon moom am na solo lool naka lañ mën a jëlee xaddis ci koo xam ne amu diine loolu yaakaar naa ku jàng amul jarx wa taadil da nga xam ne loolu jënewul maanaa waaye bàyyil xel ne kat ulama yi jël nañ ka rayoon xuseynu alayhi salaam ne siqa la soo demee ca maanaa léegi imaamu zahabi ak gaa yooyu da nga ko ca fekk nga xam ne ñoom d'accord nañ ne ka rayoon sirina xuseynu siqa la te kii moom du siqa ngir rek ne dafa weddi ne yàlla am na limite waaye nag moo moo bind saxee xam naa kon kon ci ci islam si lay bañ a doon maanaa léegi sixa al imaamu zahabi fi siyar ma ngay ma ngay commentaire ci wax jooju moo maanaam mu mu jàllat sept achar safa safa wadisin ku dem ci google fekk ko fi nee na wedd gi gi wedd ci ibnu xabbaan saaxibu sax ne ne nekkat ne ne ne moom day li mu wax ne ne ne xadd yàlla amu ko mu ne loolu weddi gi day bedd bidaa la bidaa la nee na xuus ci wax jooju yàlla digalu kenn ab benn texte ñëwut ci alxuraan wala sunna buy wax loolu buy saxal ne yàlla dafa am limite mbaa mu nag ko am mu ne kon nag li gën ci li addis waxoon min husni islaami mari tarkuhu maa laa yaani yi nit ki yàlla ëpp ju daal bokk na ci li gën a rafet ci islaamam mooy mu bàyyi loo xam ne yoom ñëw ci te loolu moom suñu nit ki ndax yàlla waxuñu ko yent bi waxuñu ko waaye imaamu dahabi yi teg ci naal ne wa taala llaahu an yuhadda wa yuusafa illa bi ma wasafa bihi nafsa aw allamahu cius la mun yàlla nag kawee na wëlif ñu koy li wutal limite wala ñu koy melal loo xam ne melalu ko boppam wala mu xamal ko ko yonent yi kon kon kon moom jaamu sax bi kon moom dàq na lool dàq na yàlla am na limite kooku nag kon wax naa wax naa téere bi ma nga ca sier maanaam léegi aljus us saari sansar safa safa wat siin alimaamu sax bi waxaat ca téere bu ñuy wax almisaan aljus us saaris 607 passe ba wax ne di di weddi alxadd ne ne yàlla am na na limite mu ne inkaaruhu lil xaddi wa wa wa isbaatukum lil xaddi nawoon min min fudulil kalaam nee na kat yéen al ibnu xabaan la mu weddi ne yàlla am na limite yéen ngeen saxal ko loolu lépp caaxaan dong la nee na nee na nag noppi ci ñaar yi moo gën na yey ba cee wax dara ndax amu texte islam yaati nafsun bi na fi dalika wala isbaatihi wala bi isbaatihi wallahu taala laysa kamislihi shay'un yàlla andiwul texte bu naan kat yàlla nee na am na limite wala amu ko te yàlla moom ne moo waxoon ne man bukk mag dara te ku ne xam ne dara ju ñu xam ci noonu ci matière da dafay am limite kon kon yàlla kon amul amul limite waaw. Ahmad ibnul Husayn al Bayhaqi mu xadis bu bu mag ba wax na it moom it ne ne ankara ankara xadda fi kitaabihi al asmaa wa sifaat téeréem bi ñuy wax du al asmaa wa sifaat wedd na ca ne xadd amul. al asmaa wa sifaat al juz usaani safa 313 334 boo boo ca demee fekk ca mu naan fekk ca muy wax loolu nee na kat at taxawi al al misri moom it 600 321 xaala fi aqidati taxawiya wax na ci aqid taxawiya ne safa 218 mu taala anil xudud yàlla moom kawe na warif ay limite wal xaayaat wal arkaan yàlla amut ab koñ amut ay finalité amut wala ahda yàlla amut ay cër nee na wala adawaat amut ay bagage laa tax wi jihaat sit yàlla amut jombenn koñ yi mënuñu ko kii ni nga ni nga xam ne matières yi noonu la mel kasaa'iril mubtadaat al mutahhar ibnu tahir al maqdisi 355 hijriya wax na moom it ci ci dàq ne al istiwa maanaam jekki ga yàlla di jekki ci ci seize ba ci ni ko islam si waxe jublu ci ak xoxoot toog jekki toog bu kii bu wér ci téere bu ñu wax al bad wa taarix soo ci demee ci jusu awal ba page cent cent soixante six cent soixante six nee na jàlla tabaraka wa taala an yakuna mahmulan yaa ne yàlla kawee na wëlif ñu ko yanu mooy jublu ca siis bi maanaam léegi ngang gu nay ga muy aras aw mahdudan wala muy limité wu am fu mu yem aw mu xaatan wala am lu koy wër loolu dara leer ñoom ci kanam dañuy wax ne yàlla am na mu nekk ci àjjana waaw dañu ne yàlla am na nekk nekk ci àjjana am na am na kër kon kon dara leer ci ci kanam islamiste yi danañ ko wax danañ danañ indi ay lay. léegi xaadim noyaat bokk ci sufiyanke yi bokk ci ci mag ñu mag ñu jëkk ña ndax alxanul xaamis la asadis la ndax 644 la ci gaddaay gi al imaamu nawawi mi ñu xam. nga xam ne moom moom moom ñëpp ko d'accord waaye nag ab sufanke la moo tax islamiste yi dañ cee amul pexe islamiste yi dañ cee amul maanaam pexe waaye kon duñ ko duñ nangu ay téeréem ndax moom moo sara saxiixu muslim kon al imam xadim noyaat xam ne ab sufanke la moom it ab ci salafis yi sax ñoom jël nañ ko bale ko ci seen seen gaa yi naka moom xam ne mi mi ngi nelaw 644 ci ci ci gàddaay gi naka noonu al imam an-Nawawi xam ne moom salafis yi ñoom it mënu mënuñ ñu ko sànni moom ab suwenke la pire waaye mënuñ ko sànni ndax ndax mu xaddis bu bu mag a mag la moo sara saxihu muslim boo demee ci sarafu saxihu muslim addisul xaamis 24 safa 24 ba 25 da nga ci fekk mu mu muy wax ne xaar yi nuyaat moom moom ñoom bañ nañ xadd la ne yàlla amul limite al imam ci Abdul Wahab ibnu Ali Ashukki bokk ci moom it ci salafis yi sax jël nañ leen ndax ndax moom it dafa bokk ci kàngam yoo xam ne neexu ñoo sànni mi ngi nelaw 771 téeram bi bi muy wax tabaxaatu Chapin ya yusu saalis bi safa 132 ba ba 133 moom it weddi na fa ne yàlla am na limite al al imam ibnu Hajar al al Asqalaani xam ne moom it ab sufiyanke la waaye nag mu xadis bu mag la salafis yi mënuñ ko sànni wax na ci téeréem bu mag ba te muy risaanul misaan al jusul xaamis safa 114 ma ma nga ma nga ma nga cay wax di commentaire ci ci ca li ñu wax ne imaam al imaam ad-Dahabi waxoon na ko ci ñuy saxal ne yàlla dafa am ab dayo ba noppi dàq ko nga xam ne mi ngi ko wax ci almizan safa justu justu usaalis 507 page ba mu ne ko saawayta rabbaka bi si il maadum ñi wax ne kat yàlla maanaam ne dafa am limite maanaam naa léegi ñu ne yàlla amut limite dañ dañoo mel ne dañoo saxal ne yàlla dafa amut ndax isil maadum la la xadd la dañoo dañoo jàpp ne lépp lu am dafa am dafa am xadd dafa am xadd nee na nee na mu daal di di wax de wax jooju de moom amul solo karaam saaxit la ndax maanaa ndax nu mu ne nun nun day du ñu nangu ne maanaa léegi lépp lu amut dayoo mooy firi ne amut nee na loolu moom duñ ko nangu mu im nunu xajar waxaat ci lisaanil misaan ca safu ca ca jus ul xaamis maanaa safa saakaros daal ne inal xaqa maa ibni xabbaan ibnu xajar wax loolu mu mag daal di ne ibnu xabbaan ma ne kat maanaa léegi yàlla amul ab dayoo dëgg moom an ak moom su dee nag al imam xasari kooku moom bu dee kooku moom xamis na ko moom waaye nag islam si ñoom dakkuruñ ci waxam moom moom moom nee na moom yàlla amut amut ab dayoo amut ab maanaam kanam wala ginnaaw amut ay ay benn benn maanaam ay ay cër loolu lépp moom da da dàq na ko niñ ko xamee ñenn ñi ñi nga xam ne nag ci ci waa ahlu sunna ñenn ñi nga xam ne de ci waa sunna lañ waaye dañoo saxal ne yàlla moom am na ay cër am na ab limite am nangam ñu jëkkee ci ku mel ni al imam ibnu taymiya rahimahullah ibnu taymiya nag nee naa ñett la ibnu taymiya mi nga xam ne ay ay norme ko wax ibnu taymiya mi nga xam ne ay soppe ma ko wax ibnu taymiya xam ne mooy dëgg-dëgg ibnu taymiya ibnu taymiya ab sufenke la ci ci ci wet soo demee ci ci ci ci téeréem wala téere bu dongaam ba ibnu xayim te muy madaari ju saalikin kon ibnu taymiya rahimahullah mi ngi nelaw 728 hijri tasee woon na moom mii ak ca ca ndawam ak ibnu arabi xaatimi ibnu arabi naan huwa day tur yàlla la nee na ma nee na ma ma ne ko déedéet kooku moom xarf rabit la rabit rek day taqal diggante ngay ma ne ma ne ko naam wax dëgg de rabit la kay huwa allaahu waaye nag dafa xamut ne sufiyanke ñoom lañ ci dugg jublu dëgg dëgg mooy alhuwiyatul mutlaqa te moom ne imte mi nee rahimahullah nee na man booban gone laa gone gone ko soo jàng rek tàmbali di di contre ci téere ba ñuy wax bayaanu tarbisil jahmiya tarbisul jahmiya téere bu bu am solo la gis usadis safan 683 soo ca demee ma nga naan wa dakaru anna jahman al mutawaffa 128 ci hijriya kon kooku moom xarnu saani ni ci hijriya mu ne jahma day ak ak atbaawoo ñoom ñoo jëkk a sos ci lislaam melokaan yi si sifaatu salbiya yàlla kat wuute nag ak bindeef yi nee na lu sifaatu salbiya loolu rek ci lay wax nee na ñoom loolu ñoo ko jëkk a wax ah loolu loolu loolu de xorom xorom na mu ne ñoom it ñoo jëkk a weddi lu wuute loola képp ku ko xam da ngaa bëgg saxal ne yàlla dafa nduru nduru dara ñoom ñu weddi ko nee na mel ne seen wax ji naan lay sa foo lay sa fooqal alam yàlla ñëw ci kaw monde bi wala huwa daaxil alam ñëw ci biir biir biir monde bi wala xara jëwoon nekkul ci ci biti monde bi wala sa fi fii makaan yàlla nekkul ci place doon makaan wala sa mu xëysan yàlla fegguwut fenn wala jëw xëran nekkut loo xam ne dafa matière wala gis man ba ba tey du jëmm wala loxoo nihaaya amul ab dayo wala xadd amul limite nee na nee na nee na baat yi yëpp ñoom dañ koo sos njërut ah li li mën naa xoolaat nee na ku ko wax ne kat yàlla newul ci kaw ay sa fooq naalam newul ci kaw monde bi nekkul ci biir monde bi nekkul ci bitti monde bi nekkul ci place do ole place nekkul ci maanaam feggul fenn nekkul nekkul matière nekkul jëmm nekkul amut ab dayoo amut ab limite nee na loolu lépp wérul fii de dama jot ne xanaa ab bool bool wala kajo kajo moom am xelam ëpp na muy d'accord ci lii yaakaar naa ab kajo kajo d'accord ne yàlla am na jëmm am na nangam danañ ko fegg danañ koo tañ ci fenn ak yéen yaakaar naa moom ab kajo kajo du ko mën a gëm kon mu ne mu ne kon yëpp na fi ne fi ne xasi siil ibaaraat jamiuha وما أشبهها لا, لا, لا تؤثر عن لا, لا, لا تؤثر عن أحد من الصحابة وتابعين nee na saxaaba yi dégguñu kenn wax lu lu mel nii wala min aimati diini maarufin nee na it te it wala yurwa biha xadisun an sallam amul xadis bu ko bu koy wax foofu nag sew soo la maanaam xadis bañ koo wax maanaam taxut ne am na ndax ndax lii chrétiens yi siif yi bi mu dugg ci islam tàmbali ñu werante seen culture lañ dugal ci islam di wax suñu waxee loo xam ne ne ne islam yonent bi islam moom moom problème bu amutoon faaw ñu tontu ko yonent bi jamonoom amuñu problème mu yàlla dayoo la ndax lay si comme si yoon arab la ñëpp xam nañ ko kon léegi rek su su ab chrétien dikkee ne man day ka ma gëm yàlla ji ma gëm mooy insa la day dox ah ñu ne ko de dafa am limite dafa am nangam day toog jóg ñoom ne ñu jóg ñoom ne de suñu yàlla ñi ñu gëm moom ëmbut loolu amul dayoo kon léegi contexte bi bi ñuy dundoon islam du ko dundoon kon léegi foofu it da ab soxla balaa la fa islamisé nax xam ne kon loolu kon da amutoon ci jamono no yont bi su amoon salaam dana ko tontu waaw mu ne kon nee na nee na it al imaamu Ibn Taymiyya jàmbaar la xam naa kon xam-xam rëy na ndax nee na wala tujadu fii shay'in min kutubillahi al-munazzalati mendi xam naa kon xam naa kon moom xam naa kon xanaa kon day mel ne xanaa kon daal yër bëri rëy na kon nan naka la mën a xamee téere yàlla yi yu asmaaw loolu amu ci woon doo xam naa ma jàmbaar la nee na nee daal wax yu mel ni yëpp axwaalu jahmiya la wala jaxamu nu safwaan ci la jógee nee na nee na it bokk na ci wax yi nga xam ne nee na salaf yi ma ma ñëpp dëppoo nañ ci ala dammihi li ma ahdasahu nee na dàppoon ma ñëpp d'accord nañu daal loolu moom bidaa bu bon a bon la nee na fépp foo xam ne dégg nga mag ñi di wax naan fi samil jahmiya nee na borom baat yu mel ni képp koo xam baat yi rek ca ca nga bokk kaana ahlu hadihi l ibarat daaxilina fi dalika mu ne it fépp foo gisee ñooy maanaam bañ wax wala alkalaam wala di dammul kalaam wal mutakalimin nee na borom maanaam baat yii dugg nañ ca biir ndax ñoom kat ñi nga xam ne ñoo indi bidaa yooyu maanaam léegi borom xam-xam yi dañ leen a ŋàññi lool borom xam yu bari bind nañ ci ñoom ay téere di leen ci ngàññi ci ñu wax lii mu ne nee na kon moom Ibn Taymiyya rahimahullah moo wax loolu mu waxaat leneen ci téere bi te bisu Jahmiya waaye bii bisu saalis la 690 ba tey mu ne wax ne waxat sabata an aimati salaf annahum xaalu lillahi xadd aa foofu nag moom lu lu rëy la nee na kat ah mag ñi day sax na ci ñoom ca seen kilifa yéen ne kat maanaam yàlla am na dayo wa anna wa anna dalika laa yaxlamuhu xayru yàlla dongo nag moo xam dayom annahu mu mu bàyyi nun li xalqi coo fi sa sa ke leel xadis yi musannafaatun nee na nee na nee na gaa yi bind nañ ci xam naa kon day jublu woon kon téeréem boobu nga xam ne kon danañ danañ ci dikk téeréem al imaamu adasti yi mu ne Ousmane Adrami yi kitaab yi an-naqda alal Marisi safa 58 nee na man man man man daa anna laysa lillahi haddun faqad radda al-Qur'ana wa daa annahu laa shay nee na képp koo xam ne da ngaa wax ne yàlla amut limite yow da ngaa daq alxuraan da ngaa woote yi ne sun boom amut maanaam du dara ñoom ñoom pour ñoom dara moom mooy mooy lu limitu waaw nee na li anna Allaha wasafa hadda makaanihi fi mawaadi'a kasiira kitaab bi nee na yàlla day moom melal nañu dayob makkaanam place yàlla dafa am place dama yaakaar ne gars yi nag dañoo jàngu science science la makkaan moom ku ne xam na ne mooy matière bu placé wu occupation matière loolu mooy makkaan nee na nee na nee na ñu ne ko waaw fan la ko waxee mu ne nee na arrahmanu alal arshi istawa kon kon léegi istawa kon wonaa yàlla toog na ci makkaan ci barab nee na kon barab lay firi waaw a amintum man fi sama nee na loolu buy firi kon yàlla kon mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci kaw asamaan si kon loolu makkaan la yaxaafuuna rabbahum min fawqihim nee na loolu ñu firi mooy mooy makkaan la yàlla kon léegi mi ngi ci suñ kaw. danañ indiwaat lu lu lu gën a yéem sax inni mutawaffiika wa raafi'uka ilayya moom Sayyidinaa Isaa nee na ba tey loolu makkaan la ilayhi yasalu kalimu tayyib wal amalu saalih yarfa'uhu nee na loolu makkaan la place lay firi place. nee na nee na yooyu yëpp nee na nee na day firi ne yàlla am na ab dayo képp koo xam ne nanguwoo loolu man lam yaxtarif bihi ba xat kafara bi tanzilillahi nee na képp ku nanguwul li ma wax weddi nga yàlla jàmbar lañ waaye na jàmbar lañ waaye jàmbar lañ waaye yu mu ci mu ne wajahada ayatillah da ngaa weddi juhud nag mooy nga weddi ginnaaw ba nga xamee nee na ibnul xayim rahimahullah fi kitaab bi asawaiq al mursala téere bi képp dafa metti so saa xam nga laati dënn yooyu oh mu ne ay dënn yoo xam ne dañ koy yónni dañ koy yónni mu ne xanaa al jahmiya wal muattila waa jëf moom ñi nga xam ne dañ ne yàlla dafa am maanaam suñu boobam kat limité wu yooyu nee na ñu ngi koy wax ci téere bi nag al jusu salis la safa 934 ba 936 soo demee fekk ca maanaam yaquluna yahni al jahmiya di jahmiya wax nee na nahnu nunazzihu llaha taala anil araad nee na waa jëf ñoom nee ñu noonu day dañuy sellal yàlla walif luy gaar ak axaraat xemem darak abaat ay benn benn ama ay cër. yàlla amul ay cër yàlla amul limite yàlla amul maanaam ay jubluwaay suñu borom it du wàcc ci ci ci yu soso yi suñu borom nee na nee na loolu nag su suñ ko waxee ñoom waa ju xamul dara ji dégg ko daal ne yii yi yi wax de am na solo fa yatawahamu minha annahum yunasihuna Allah xama xama yufhamu min maaniha inda itlaq nee na nee na li ngay dégg ci maanaam moom ci wax ji mooy moom loolu dañuy selal suñu borom nee na mi loxo yóbbu woon xaalis daqal ko ay ayib ak ak wàññi ko ak aajo mu ne falaayu falaayu ne su su waajee digg loolu da da yaakaar ne ñoom kat dañ koy taddal day dañuy dañuy teral yàlla dañ koy màggal waaye nee na wekk si fa naaqidul basiir kiy critique dëgg xam ne ku mën a critique la kon nag am gis gis bu sori nee na maa tax te xasir alphase. fa yaraa taxtal ilhaad nee na mu nee na mën a xool ci ron baat yooyu gis ca nag wedd yàlla moom ko jàmbale ko moom xanaa kon bërëb gi mën naa gis lool mu ne mu ne ñu ñu gis say birit takk si brusul mooy mooy ma si ko wax wax ci wolof maanaam weddi rek weddi wax yonti waxtaanti li rab islaamit si baat yi ñuy wax dafa di sax ma takk si brusul moom koo dégg da nga tiit waaw ndax ndax alkadi bu mooy wax lu jóonoog dëgg waaw kon taxti rabb mooy nga poñe yàlla fële yàlla duutu am liggéey taala may seqoo mi mi kamari ci ci ci teem yeeyoo ci ak matam nee na fa tansihum anil axaraat li li li ne yàlla amul luy gaar neen neen neen nee na yàlla jëmmum ju sell ja amul lu cay gaar ñoom bu ñu ko waxee ñoom jaxam ya jubluñ ca nee na lu baax de xam nga lu ñu ci jubloo ne yàlla amuti melo gaar luy gaar ak a dem di sosu maa ngi wax noppi di waxaat ñu ne ku ne yàlla du du wax wala day wax du wax di noppi ak a waxaat yow kon da dangaa bëgg a dindi melokaanu maanaam wax sifatul kalaam nee na nee na nee na mel na déggam nga mel na gisam ba mel na dundam nga mel na xam-xamam ba mel na waxam ja loolu lépp képp ko ko xam ne ndax waxam na wax moom day day gaar ci ci ci li nga ko xamee ci làkki adduna ak nambelam nga mu ne yii yëpp kat luy gaar la fi ne hadihi araad lahu indahum laa taqumu illa bi jismin ne ñoom ne ñu lii lépp mënta am lu may ci jëmm falaw kaana mutasifan biha su su yàlla melo noonu ci waa jëf mu ko wax la kaana jisman bu yàlla melee nii dafa am jëmm kaana araadan lahu loolu melekaan yooyu doon ci moom luy gaar te yàlla moom ku ñu ku ñu teddal la wërif luy luy gaar bu dee nag axaraat yi nga xamante ne axaraat xamu xarat ni ñu ko waxee mooy ay bëgg-bëggam nee na nee na fahil xaayatu wal xikmatu lati li ajliha yaxluqu wa yafaal nangam sun su suñu boom lépp lu lu mu def am na lu tax mu def ko am nag am na nag ci mutakallim mooy ñoo xam ne dañaan suñu boom doo def dara ngir dara waaye loolu moom yéen wul maanaa maanaam nga xam ne kon buy digle buy tere mooy tax muy yoolee mooy tax muy mbugal nee na yëpp nee na nee na ñoom dañ koy firee ne loolu day moom ay xemmemteef la te ak i ak i mbir yoo xamante ne mooy tax mu def loolu ba tax ñoom ñoom dañ ko cay soreel ne nee la daal moom lépp lu mu def amul ca intérêt na xam loolu loolu wér na yàlla doo ndax yàlla su amee intérêt ci mbir rek kon mooy ko ko léegi dafa manqué soxla woo gi la waaw te te nee na wala xan yun an yaamin ah loolu kon kon mu nekk moom mu ne mu ne abaadi bu ne yàlla amut ay benn benn maanaam amut ay ay lan ay dé détail ay cër amu ko nee na fa fa fa muraaduhum bi bi tansiihi anha annahu laysa lahu wajhun wala yadaan ñoom dañuy jul ne yàlla amul bo amul kanam amutul loxo wala yëpp si samawaat te du téye asamaa yu du ko téye ak loxoom ala ala usbuin ci benn baaraam wala da ala usbu kooku dama yaakaar ne dëgg yàlla ñoom daal dafa mel daal xanaa dégguñu xanaa daal làkk wala boog daal xawma lu xew mu ne amal xudud wal jihaad